jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy ñaanu ana judub samwel nettali bi mi ngi cosaanoo ci benn samwel saar benn aaya benn ba saar ñaar aaya fukk ak benn saar ñaar aaya ñaar ba ñaar fukk ak benn amoon na kenn nit ku tuddoon elkana mu dëkkoon ci réew mu am ay tund ci bët gànnaar mu ngi bokkoon ci askanu efrayim mooy tofo yusufa elkaana amoon na ñaari jabar kenn ki mu ngi tuddoon aana te amul woon doom keneen ki penina te amoon na ay doom at mu jot nit kooka day dem ci dëkkam ci magalukaay yàlla ci silo ngir jaamu yàlla saa yuy def ab sarax daana jox penina ak i doomam ku nekk benn cër ci yàpp wi waaye daana jox aana ñaari cër ndaxte moom la gën a bëgg moo na aji sax ji def ba amul doom te wu jëm di ko naqaral ngir merloo ko ci li aji sax ji def ba amul doom tat mu nekk noonu lay def saa su nekk aana daan na jooy te jëkkëram di ko laaj aana lu tax ngay jooy te bañ a lekk lu tax sa xol di tiis ndax gënaluma la fukki doom yu góor benn yoon bi ñu lekkee te naan ba noppi ci silo aana jóg booba eli sëriñ bu mag bi mu nga toog ca wetu jiinu buntu màggalukaay aji sax ji te aana ànd ak naqaru xolam ñaan aji sax ji te jooy bu metti mu dig aji sax ji ne aji sax ji mën lépp soo nemme ko sama naqar man mii sa jaam soo ma gëstoo te bañ ma fàtte te soo ma mayee doom ju góor dinaa la ko sédde giir dundam noonu mu yàgg fa lool di ñaan fi kanam aji sax ji te eli seetlu gémmiñam fekk ana di wax ci xolam te yëngal tuñi waaye yëkkatewul baatam eli daldi koy gëdd ne ko ba kañ la sa màndit mi jëm ak yow demal reesal sa màndite aana tontu ko déedéet sama sang jigéen ju am naqaru xol laa naanuma biiñ walla wenn ñollu waaye maa ngi doon béral sama xol aji sax ji bu ma jàppe ni jigéen ju yàqu ndax soxla ak naqar yu bari ñoo tax may wax ba léegi eli ne ko demal ci jàmm te na la yàllay israel nangu li nga ko ñaan te jigéen ja dem mu lekk te xar kanamam leer ba aana ñëwee këram jëkkëram tëdd ak moom mu ëmb am doom mu tudde ko samwil ndax dafa ne ñaan naa ko aji sax ji at ma ca tegu aana àndul ak elkana silo ngir jaamu mu wax jëkkëram bu xale bi feree dinaa ko yóbbu ngir sedd ko aji sax ji te mu des foofu faaw elkana ne ko defal li dal sa xel ba xale bi feree aana jël ko ak ab mala ngir sarax te dem ca kër yàlla ga mu ne sëriñ eli xale bii moo tax ma doon ñaan tey sax yi defal na ma li ma ko ñaanoon ci sama wàll nag maa ngi koy dénk aji sax ji xale bi Samwil liggéeyal borom bi ci ndigalu sëriñ Eli ndax borom bi dafa waxoon dinaa wutal sama bopp ab sëriñ bu wóor buy def li sama xol bëgg ak li sama ruu bëgg xale bi Samwil di màgg ci ja tey neex yàlla ak nit ñi waaye doomi Eli ay nit ñu bon lañu woon yu rus woon borom bi fii la nettali bi yem nanu jàng aaye bii bëti aji sax jéengi ne jàkk ci ñuy jub te seeni yuux ne tell ci ay noppam saboor saar fanweer ak ñeent aaya fukk ak juróom benn